ci list bi ñi ñu fi tudd ñëpp waaye tam ñi leen jàppale ci liggéey bi waaw wa tabarakallahu service de sécurité yeeg sapeur pompier yeeg wa journaliste yi fi ñëw yépp moo xam ci ñu nekk télévision yu mag yi la sama mbokk bopp yi ndeysaan Mansour Diop waaw ah. waaw ak Pape Djibril Fall ndeysaan député waaw ah. wax nañ ma seen teewaay fii la dëkk moo tax bañ ma ne gaañaa ngi négocier ak Pape Djibril ma ne ban Pape Djibril man ma ma xamoon ma ne ko am ne loo xam ne bis bu ko nangoo xamal ni dootul moom waaw waaw tabaarakallahu nitu principe la ci li ma xamoon ci moom bu ko defee rek ñoom ñëpp ñu nuyu leen gërëm leen sant leen ñu yore réseau sociaux yi ay saan léeg-léeg ma am ñu ma tooñ léeg-léeg ñu ne ma gis nga sa photo bi ci réseaux sociaux yi ma ni ki tukulóor bu ñaaw rek waaw walay ndeysaan waaw tukulóor bu ñaaw rek ñoo ñoom maam Cheikh ñii ñoo war a photo ñoom waaw atax <laughs> bu génnee ma gis xale yi daanu rek ma ne waaw géej waaw lu nekk ak ka ko moom waaw te ku añaanewul sa ndono rek yàlla suturaal nag yàlla na ngeen dund ah seeni mag tabaarakallaahu soxna mu xëyree nga nele soxna Fatima ak seeni boroomi kër buñ mën nee Cheikh Omar indi na fi ay nag ni ma soxna Fatima mook borom këram Mustapha jëndal nañ la ñaar fukki xar indil nañu la it vingt mille sachet ci ay ndox